waaram wala ñu wax la fi mu jaar danga nga naan laa xarwa nag mu am lii mu am parce que ku sonn jariñu xam nga Oustaz Assane jàpp la ne la weddil yàlla dugal la par exemple ci euh, euh, prison boo xam ni wax nañu ni bi mu duggee bi mu tegee tànkam ràbb yañ fa placé dafay bëtt ba génn ci biti ngir rek baatu weddil yàlla mu ne ñoom bi nu ma jàppee jàpp nañu ni man la jàpp ñoom ci seen wàllu bopp jàpp nañu ni am nañu kàttan ba jàpp nañ ni ay boroom garaat lañu fekk